jëm ji ngeen di yaakaar lool ni tijaan sàll lay wuyoo Jurbel la fekk baax école primaire mi nga ko defee franco Morik te léegi ñu koy wax école ma soxan soxan collège mu defe ko CS ex cg avant muy am bac technique série F1 ca LTAB lycée technique Ahmadou Bamba ba mu ko defee moom mii di tijaan sàll tànn njàngum génie civil yëkkati xam-xam bu màcc jëm ci tabax loolu sax moo waral mu wéy la am njàngam ca daara ju kawe ja di université Cheikh Anta Diop bu Dakar ba am fa diplôme mu DUT di diplôme universitaire de technologie ca INSUT di école nationale supérieure universitaire de technologie gi def na quelques entreprises rawatina CDE di bu ñu ràññee lool ci àdduna wërngal këpp rawatina dans la sous-région ouest africaine avant muy dellu école supérieure polytechnique ESP bu Dakar ngir wéyal fa am njàngam fala la amee diplôme ingénieur ci génie civil nga xam ne lépp luy bâtiment pont route forage ak yeneen yu ni mel da koy liggéey ca anam yu baax expérience bi mu jëlee ci entreprise yi yépp CD1 DCI e, di domaine de construction et d'ingénierie di def étude du béton armé exécution ak projet de construction. alors donc entreprise tu deviens maintenant un exécutant donc da exécuter après avoir reçu les plans ma tout à l'heure à savoir les plan béton plan archi plan béton sur la base de ces plans là ci ngay mën a commencé nag def sa donc foofu exécution boobu maa ngi duggoon entreprise bu CDE def naa fa 15 ans d'expérience sans compter les 5 premières années que ma la wax tout à l'heure yoo nga cabinet d'architecture et le bureau d'études d'ingénierie. alors depuis euh, décembre 2016 nag laa préféré faire man entreprise entreprise bi moo DCI domaine de construction et d'ingénierie alors ci laa commencé ay projets pratiquement entre Saly ak Dakar. bokk na ci projet yi mu donné bi mu donné conducteur des travaux fële que CDE. extension DA16 De base française nekk ci Ouakam travaux aussi yi laal na ci lu ci tunnel bu bi. tali bi lëkkale ex pont 92 ak rond point Case ba xam-xamam it tàbbi na ci. AIBD di aéroport international bu Blaise Diagne xam-xamam tàbbi na ci biir. am na it ay immeuble yu bari yu nekk ci centre ville bu Dakar tàbbal na ci xam-xamam moom Tidiane Sall mi ICS industrie chimique bu Sénégal quai de pêche bu Mbour mosquée Cheikhna bu Sow bu Zac Mbao lépp DCI domaine de construction et d'ingénierie xam-xam dëgg DCI domaine de construction et d'ingénierie siège social bi Dakar Sénégal téléphone 77 644 80 86 76 644 80 86 77 548 35 25 77 560 0410. DCI, domaine de construction et d'ingénierie, Moins entreprise bâtiment bi